jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci actualité politique avec monsieur le maire euh, député maire Malick Fall de la commune de Diourbel Malick Fall nag euh, di fàttali ne euh, démb daje bi nga xamante ni amoon na muy inauguration marché. xedd gi bu Kër Cheikh Malick Fall dégg nañ ko suñu micro gannaaw bi mu waxee ci li nga xamante ni moo ci biir bâche bi euh, nee na moom dafa yor ku yor ñeex rek lay mu ñeexal ko loolu nit ñi retaan ci di dégg ci lu bari muy nguur Macky Sall ànd na ak ñoom fi mu ne nii maa nguur gu bees moo fi ñëw muy nguuru Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñu dem laaj Malick Fall pourquoi à chaque fois muy wax yokk cere dollu ñeex lan la ci dégg ak lan la. yokk cere dollu neex bi daal mooy ñun Jurbel euh, rek la ñu am. te Diourbel la ñu gëm ñun amuñu parti politique suñu parti mooy Diourbel ku fi yàlla indi yàlla teg la fi te ñu bëgg a defar programme Njaareem Diourbel Njaareem boo ñëwee ñu ànd ak yow ci liggéey Diourbel loolu du politique Diourbel moo tax ñu ànd ci liggéey lépp lu ñu am mën ko te mu tële ñu ay partenaire mënu mais foog naa partenaire bëpp doole mooy état du Sénégal moo tax ñu ne ñun saa ñu fa nekkee. te ñun amuñu benn partenaire bu état du Sénégal ak état bu mën doon bu ñëwee rek dañuy ànd ak moom liggéey moo tax man ñun cere lañu yor waaye cere ji amul ñeex kon état bu fi ñëw rek danaan ko ñeex ñeexal ci cere Njaaréem o ñu ngi sant dégg dégg ngeen ko yaakaar naa ne tungoon du teew ñuy nataal Malick Fall leeral na nee daal moom cër la yor eh, te ku yor ñeex rek moom lay wër waaye ñu laaj ko kon ba xam ànd bi nga xamante ne gisoon nañ ko wala xamoon nañ ko mu ànd ak benn bokk ay kàdda kàdda këlam déet Malick loolu jeex na ci mouvement am la taxaw liggéey rek maanaam dëgmal yeneen échéance waaw mais wax naa ko bu leer ndax nee naa ko ñu ànd nag ñoom ci ngor ba lépp jeex ci ngor kon foofu lañu mën a yem ci ànd bi kon nag léegi ñu ngi créé mouvement bi téye ko di liggéey suñu bopp di ko massifier ba fu ñu ci tolloo ci affaire politique luñ ci war a def nañ ko waxtaane te buñ ko waxtaanee ku ñu war a àndal defal liggéey bi boobaa dañ ko xam mais lépp bu ko njaaram taxee jóg rek dañ ko def loolu nag comme tollaguñ fa te dèjà eggaguñ foofu fi ñu toll mooy defar dëkk bi ñoo fi nekk ñi fi nguur gi teg ñu ngi fi tàll neen loxo programme ak projet yi ñu am ñu ànd ak ñoom ñu eggal ko ngir askan bi jërëjëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci li nga xamante ni mooy seen rubrique politique avec monsieur le maire euh, de la commune de Diourbel Malick Fall nekk député à l'Assemblée nationale euh, di li ngeen wax a chaque fois ngeen scotché ci fi nga xamante ni mooy eh, Baol Times eh, TV la vitrine du Baol ci YouTube ngeen bu leen fàtte di aimé ak di abonné ak boo ñu bëggee kat ci information yu gën a yaatu nag ngeen dem ci comme ci Google su ko defee ngeen am xibaar yu gën a yaatu ak yu wër eh, njaareem ak Sénégal ak na bi wërngal kër